tur gën ca siiw di président Ousmane moo moom mu nekk ci situation bu ni mel ba tax na tey groupe parlementaire Yewwi Askan di naqarlu lu ni mel waaye di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def lu ni mel génnee ñi caabi féete ginnaaw yëpp te defuñu waxuñu gañ dem ba Touré mi nga xamante ne amal na ab exil fële ca réewu Mali groupe parlementaire Yewwi Askan Wi di xamle ñeent fukki yeneen doomu mim réew yi nga xamante ne autorité yi nag ñoo ngi leen di wër jamono ji ba tax ñi bu ko def ni gañ dem ba Touré. ñeent fukk ci ay ndaw laa wax yoo xam ne dañoo waroon a toog liggéeyal seenu réew ñoom ñëpp génn nañu daw te dara waroon lu dund loolu. ci loolee yëpp mun nañ cee yokk itam li ñu duppee acharnement jëmale ko ci militant Pastef nekk ca diaspora bi. bokk nañ ci ñi téye réew mi économiquement ñoom waa nañ ko ci aéroport international Blaise Diagne ay tur yoo xam ne dañ leen a bind ne ku ñëw la jàpp ku ñëw màggal si nañ la jàpp même màggal si boo ñëwee ci réew mi nañ la jàpp. Eh, dund mu seer mi itam. bokk na ci li nga xamante ne député yu l'opposition bi ñaawlu nañ ko. soble kilo yàpp lépp loo mën di dund ci dëkk bi xam suñu demee bañ naan Maroc indil nañu lu tolloog juróomi junni ci ay tonnes di jubilé mais loolu gàcce mënu koo weesu. ci seen jano ak taskatu xibaar yi groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nag gën na fësal taxawaayam jiital ca kanam candidature bu seen leader bi di Ousmane Sonko waaye Yewwi Askan Wi moom ñàkkul di xamle ni itam lu ne fàng lañu bëgg ci lu soxal ki war a jiite élection présidentielle te bëgguñu benn yoon mu nekk jëwriñ bu yor wàllum biir réew mi bi fi nekk jam